من ميلي لغير رضا ومن صدودي عما سنة أو فرضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi ñi teew ci jotaay bi di jàkkaarloo ak sunu jëmm wala ñi ñuy topp ci jumtuwaayu xarale yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi yëkkati juróomi baat yooyu di leen ko nuyoo di ci wat di len ndokkeel ci wéru màgg wu tedd wi nga xamné ñu ngi ci waye bis bu màgg bu sel bi nga xamné ci biir la nek té moy bis bañu taxawulon badar doon xéxal l'islam ngir mu taxaw bañ jot ci ñu ngi len ci bu baax di ci ndokkeel julit ñepp ni ñu baaxo and ci jotaay yi ñuy amal ba wi tàmbalee ba fi ñu tollu te fas yéene ko wéyal ba mu jeex itam incha allah mu di jotaayi xam-xam yoo xamante ne ay yoon ñi fi jaar jaar nañ fi ci ay tomb yu wuute waaye ci anam miinu jàngalin wu wuute itam loolu daairatu muxaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu jotaay yi moo ko tënkee noonu tëralee noonu itam muy seddale jataay yi ñuy def ci biir koor gi seddale ko ci ay ñetti fànn ñetti fànni jàngalin ndax jataay jàngale la waaye am jàngalin itam daa am ay anam yoo xam ne mënees na cee jaar ngir jàngale xam ngeen ne am na ñoo xamante ne bu ñëwee dañuy def yu ñu ay waxtaan waxtaan yoo xamante ne day mel ne euh, dañ koy dañuy waajal ab tomb ab thème boo xam ne bu gën a général la boo xam ne day laal ci lu mel ne société bi nga xam ne li ñu dund ci lay ñëw di ci di ci waxtaan boo ko defee def ci ay jàngat yu xóot ngir wan nit ña fañ ci war a taxawee ci seen wàllu diine boobu benn anam la ci yi ñu tëral fa seeni muy ci jotaay yi am beneen anam boo xamante ne day mel ne dañuy gàggante nit ñi ci li ñu xamul ci seen diine mooy di leen ubbee nga xam ne nit ki day laaj ab laajam boroom xam-xam ñëw toog fii di ko tontu muy ay laaj ak ay tontu loolu itam aw xeetu jàngaleen la ndax nit ki kiy laaj bu laajee ko xam mu xamal ko jàngal na ko ñetteelu anam bi te suñu jotaayu tey bii ci lay dugg mooy nag loo xam ne dañuy tànd benn ci bind yi nga xamante ne ay bind yi fiq lay nekk mooy ni nit ki war a jaamu boroomam fiq moo tënk lépp loo xamante ne ci mooy jëfi jaam bi jëf lu muy jëf rekk ci biir fiq googu la tënku tey kon dañuy jël ab bind boo xamante ne kii jàngale tey du def waxtaan du loo xamante ne day nekk thème boo xam ne da koy jël ci société bi ngir jàngat ko def ci ay analyse du tontu ay laaj ndax du jotaay tontante ay laaj waaye day indi ab lëson maanaam day jàngale jël benn bunt ci bunt yi nga xamante ne fiq la mu jàngale ko bunt bi ñuy jàng tey ci wàllu fiq dafa séddale ko ñaari xaaj xam ngeen ko mooy fiqhul ibaadaat ak fiqhul muamalaat fiqhul ibaadaat moo ñuy jàngal nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy ajee màkka nan la ñuy nattee azaka ak ya ca aju yi nga xamante ne suñu diggante la ak suñu ak suñu boroom mooy jaamu yàlla gu mel noonu loolu lu ñuy jëf la ak lu ñuy wax beneen pàcc bi ci fiq mooy biy jàngale nan la nit ki di jëflanteeg moroomi jaamam yi mu siqal dund gi moroomi jaamam yi jëflante boobu loolu lañu ñu woy fiqhul muamalaat bind bi ñuy jàng tey foofu lay dugg dafa aju ci li ñuy wooy fiqhul muamalaat nan la nit ñi di jëflante ci seen biir loola nan la ko lislaam jàngalee nan la yàlla mi leen sàkk bëgguñu ñu ko ca loolu la sëñ Abdou Khadir Bousso haji cheikhu di waxtane tay cheikh Abdou Khadir fi la jangé ci dëkk bi jang lim wara jang lepp mokal al qur'an alxuraan bind ko jang ci wajuram serigne Buso al imam mi ngeen xam jang ci mom ba jang ci liñu jang mbollem fiqh fi dem luga jang fa gen genn rew mi ñeek muy genn jaar na fi ci Azhar bu ndam bi fi jógee la dem Maroc gi ngeen xam jàng fa lam doon jàng nag dafa aju ci lii nga xamante ne mooy taxasusam mooy moom ci lii la spécialisé wu moom la xam kon buñ ko ciy déglu buñ ko joxee nopp lam cay wax lu muy teg ci xam-xam la lu muy teg ci xam la kon tey mi ngi ñuy jàngal bind boo xam ne dafa aju ci ay jëflante yu nit ñi di jëflante ci seen biir ci wàllu jënd ak jaay ndax nit day am alal alal ji mi am nag faw lislaam dane ko nii nga koy amee mu nek amin wu dagan faaw dañ la koy may wala nga dondu ko wala ñu sarax la ko wala nga liggey ko bir liggey bobu nak sa yoy liggey rek la nga cey amé jënd ak jaay la dana wax nan lañuy jëndante ak nan lañuy jaayante lool dana ci ñew ci leral bi kon tay bind bi mi jangalé ci jënd ak jaay la aju waye buntu bu yaatu la mu teunk ci nak lo xamne dana tax nit ñi man ko gëna japp mooy day wax ay jëflante ci wàllu jënd ak jaay yoo xam ne lislaam da koo tere te nit ki koy def mën naa am xamu mu bëgg koo jàngale ngir ki ko daan def bàyyi ko xel xam ne lii jëflante bu ñu tere la ci wàllu jëflante ak jaay bu ñu sukkandiku ci sharia kon sëñ Abdul Qadir ñu ngi lay ñaanal tawféex yàlla defal la ak fatxan mubiin ba li nga bëgg a leeral nga leeral ko ni nga ko bëgg a leerale ñu ngi koy jottali itam dégg ko ni ñu ko war a déggee te jëfee ko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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu mbokk yëpp di ziyaar ñëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk waaye tamit di leen fetli suñu ndokkeel ak suñu ñaan ci bisu sell yi ñu nekk jóge ci bis boo xam ne ñu ngi ci doon fàttaliku xare Badar waaye jëm ci bis yoo xam ne danañ ci faral di dàkk laylatul xadar nuyoo yi ak ñaan yi ak cant yi ak ndokkeel yi yëpp nag ñu ciy jiital kilifa gu mag gi di cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifatul aam lil di ko ñaanal suñu boroom mu yàggal ko wéeral ko kàttanal ko tawféexal ko ba naal yim am ci e, murit gi ak ci dëkk bi yëpp ak ci àdduna bi yëpp suñu boroom sottal ko moo ko ñi mu àndal liggéey bi yëpp waaye di la nuyu yow sëriñ Amdi di nuyu waa daayira Muxaddamatul Xidma yëpp nga xam ne kenn lañ ci ñoom suñu nuyoo nag ak suñu siyaar ñu koy dooree ci ki ko jiite nga xam ne mooy suñu kilifa jàpp naa ne comme ni ma koy waxee at mu jot rek saa yu ñu toogee fii di wax damay jàpp ne dañuy tari dañuy tari lenn calam ñu jàngaloon ginnaaw nag dañuy tari tamit ñuy diglu te du nit ku am complex lu ñu juum rek mën nañoo fekk fi ñu toog daat koy jooyanti incha allah ni nga ko waxee sëriñ am di dunduk doomu aadama charia da koo ci ay anam yu baree bari am na ci lool day aju ci diggante nit ki ak boroomam loola àtte ya koy noos loolu lañuy ñuy tuddee àttey jaamu yàlla fiqhul ibaadaat comme ni nga ko waxee léegi nit ñi ci seen jëflante ci seen biir moom it àtte ya koy noos bu dee aju ci sëy ak ya cay topp loolu lañuy ñuy wax fiqhul muamalaat al usuriya wala ñu koy tuddee al axwaalu saxsiya mooy rek lu jëm ci wàllu famille bu dee lu jëm ci wàllu alal ni ñuy jaayanteeg ni ñuy jëndanteeg luye bu amee euh, société ak ya ca aju yépp ci wàllu jëflante ci wàllu alal loolu ñu tuddee al muamalat al maliya bu loolu jàllee fiq amaat na yeneen bunt yu aju ci àtte yu aju ci ay tooñ yu aju ci ay mawaaris ni ñu doon de nit ki ni ñuy séddale alalam bu faatoo ila axiri waaye tey dañoo jër rek dañoo jukki rek benn bunt ci loo xam ne day wax ci jaay ak jënd comme ni ko sëñ Amdi Moustapha waxee léegi jaay ak jënd day bunt bu yaatu lool ci lislaam di bunt boo xam ne it bari nañu ci aju lool moo tax waa daayira bi gis ne war nañoo xool benn tomb bu aju ci jaay jënd boo xam ne dafay wax ci eh, yenn ci yu ñuy tere te nit ñi di ko def ci jaay ak jënd bu ko defee ñu fàttalante ci comme ni mu ko waxee it incha allah jotaay bi ab dars la ab bin la bu ñu jël moo tax xay na du mën a compliqué euh, tom bi may njëkkee rek mooy jàng lu aji ci jaay ak jënd farata la ñu baree bari dañuy jàpp ne boo waree julli da ngaa war a jàng ni ngay jullee ni ngay jàppee boo waree woor da war a xam faratay koor sunna ya lañ ca sopp lañ ca siip la koy yàq waaye nag boo dee jaay ak di jënd moom noo ko defee rek baax na déedéet jaay ak jënd atte la bu bokk ci atte lislaam yi waaye beruwut beru go xamne nit ki nuko neex non la koy def xam ngeen ni mukallaf mu ne day aram ci mom mu jëf jenn jëf ak jëf ju mën a doon te fekk xamu ja la ci l'islam at lolu sëñ bu mag bi moo ñu ko waxal bopam ba muy wax nan wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad haruma qaddim ala ibadatin taalluma kon bo mu ta jàng lu ca la ca la lañ mënta ñàkk ceew da nga koo war a xam ak donte da koy laaj moo tax mu naan wa fil kitaabi fasalu ahla dikar tuuba liman hamma bi ilmin da nazar ñu xam ne loolu ay wax la yoo xam ne da koo wax rek ci jaamu yàlla yëpp ak gu mën a doon danga nga koo war a jàng njëkk nga koy def waaye jëmmi alal sax sëñ bi da koo beral ak tudd wax ne mooy bala nga ko wut euh, di di ko di ko dajale da ngaa war a jàng àtte ya ca aju loolu la doon wax naan wa baadu faalam anna xayra mashtagal fatan bihi ilmun wa diinullahi jal man faatahu haadaani fi dunyaahu mushtagilan bilmaali an hudaahu fama lahu gadan diwa alazaabi wa niqmatun wa niqmat wa niqmatullaahi bil artiyaabi kon ku fi ku topp àdduna rek ba xamoo li nga war a xam ëllëg mbugal rek nga ci jëlee ak alkane atte yooyu nag xam li aju ci jaay ak jënd am na solo lool boroom xam-xam yi bu ñu koy delloo ci cosaan dañ naan li koy liy wan ne farata la mooy xadis boobu wala asar boobu nga xam ne moom la Umar ibn Xattaab waxoon ne laa yabi fi suuqina illa man tafaqaha fi diin suñu marché bi kenn du fi toog di jaayante ak jëndante njëkk ngay xam atte ci aju moo tax imaam Malik radiyallahu anhu mii nga xam ne moom la ñu topp ak ngiram Euh, daana digal bóor yim bokkaloon jamono di leen wax ñuy dajale commerçant yi ak jaaykat yi nga xam ne dañuy xëy ci marché bi bu ñu ñëwee mu leen di natt di xool ndax li ñuy jaay maîtriser nañ xam nañ àttee ci aju wala xamuñ ko comme gis ne xam nga ko mu bàyyi la nga continuer sam jaay waaye comme gis ne xamoo ko mu ne la laggal jàngi ba xam la ngay jaay la ci aju ci ay àtte ndax boo ko defut da nga lekk riba da nga lekk lu araam moo xam neex na la moo xam neexu la loolu it moo tax jamono bi muy dox dëgg-dëgg nit ñi daan àttewoo ci àttey lislaam xam nañ ne réew yi féete sowu daanañ am lu ñu tuddee muxtasib mooy rek koo xam ne day wër marché bi di xool ñi ngi jaay di leen natt comme egsi ci sa place wala ci sa taabal laaj la ba xam li ngay jaay xam nga àtte bi wala xamoo àtte bi boo xamee àtte yi mu bàyyi la nga continuer di jaay boo xamut àtte yi nag mu ne la demal jàngi ba xam soog a soog a kon continuer sa liggéey ndax boo ko defut danga nga lekk loo nit ñi riba kon nuyu yëpp day wane ne xam lu àttee njaay am na solo lool ndax boo ko defut da nga euh, lekk riba baa nga lekk loo nit ñi riba jaay moomu ñuy waxtaane nag mooy lan jaay ci euh, baat bi ci luuxa bari na lu muy firi lool loolu taxuñoo jóg waaye dañ koy xam ne rek ci bu ko fiq waxee mooy lan bu ko fiq waxee boroom xam-xam yi jàng wàllu fiq xamle nañ ko ci ay anam yu wuté waye buñu tanko ci mësabu imam malik man nañu delu ci xamle gi ko ibnu arafa le ñep xam nañ ne ibnu arafa le kat bi gëna siiw ci katu mësabu imam malik mom bo démé ci hudud daf lay wax ne jaay accord la waxtaan ba jubo la jo xamne ak jokalante moo lal عقد معاوضة عقد معاوضة لكتب لخم ين أكوري وقتان يبجوا دفع نياري خيتي والو جفلن تجي والو ألال أمن لن يوا عقود المعاوضات أمن لن يوا عقود التبرعات عقود المعاوضات موي جايك جند لي خن جوقلن تجي أم ولا nga ligéyal nit mu fay la nga xamné dal mom lo joxé rek day am lu muy jakar lool bu dé am ko lu nak moy lu wala saraxé wala def waqfu wala yu mel kon jokkalante la boo xam ne bu aju ci njariñ bu du nekk loo xam ne service lay nekk service ijaara la waaw bu fekkee da ngaa luye ab oto loolu du jaay waaye kiraa lañ koy tuddee wala ijaara bu fekkee ne da ngaa luye nit ab maçon mu lay liggéeyal wala boog koo xam ne daf lay dawalal oto wala yu mel noonu loolu ijaara la waaye dugut ci jaay dëgg-dëgg ci bu ñu waxee jaay ci maanaam mi gën a xat euh, mu teg ci ne suumukaay sa jaay ak jënd bu ñu ko waxee saa yu ne ñi koy def kenn ku ci ne da ngay ci jéem a xool dangay ngay xëcc jëmale ci sa bopp da ngay jéem a xool sa intérêt waaye mu ne jaay ak jënd foo ko fekk ñaar yi jàkkaarloo du nekk wurus ak xaalis boo joxee nit ki wurus mu jox la wurus loolu weccee lañ koy tudde waaye du tuddu jaay loolu mooy échange bu fekkee ne jox nit xaalis mu jox la xaalis loolu tamit weccee lay tudd waaye tudd jaay jënd bu fekkee da nga koo jox or mu jox la xaalis loolu tamit ci sarf lay dugg ci échange lay dugg waaye duggu ci jaaye ak jënd jaay ak jënd fii nag bi ñu wax mooy njaay moo xam ne marchandise mi day teew nga joxe ko wala boog prix bi day teew waaye bu fekkente ne dañu laa jox piri ngay xaar ba jëmmi jamono nga soog a joxe marchandise loolu ñoom fu ko xaay dañ ko tuddee bayu waaye dañ ko tuddee salam ci majaalis yaakaar naa moom nañu daan tuddee salam le salam le nag bokkut ak bayu kon dañu gis ne bu ñu waxee jaay ci fiq dafay génne wàllu yooloo li ñu tuddee yooloo te mooy luyee nit wala boog luy matériel day génne tamit wàllu sey day génne wàllu échange wecce day génne ñoom li ñu daan tuddee muraata la muraata la nga xam ne marchandise ngay joxe mu jox la marchandise moo xam ne dañ ko peese bu dee bu ñu ko peese wut ñoom moom lañ daan tuddee mubaada la waaye day génne li ñuy tuddee salam njaay moomu nag bari ay façon loolu buñ delloo ci téere bi ñuy wax mawaahibul jalil bu imaam xataab def sa doon ci saraa muxtasar xalil def nañu jaay mën nañ koo séddale ci ay anam yu baree bare kenn ku ci ne mën nga ko ak day day dépendre rek day sukkandiku rek ci bët bi nga koy xool bu ñuy xool ndax li ñuy jaayante ak li ñuy jëndante muy marchandise mi ak prix bi yépp mi ngi teew wala teewut bu fekkee ñoom ñaar ñépp teewuñ wala benn bi rek moo teew bi ci des teewut foofu mën nañ fee seetle jaay ñeenti xaaj bu fekkente ne njaay mi ak gàppal amu yi maanaam wutaluñ benn amut lenn lu ci am délai jox nga ko marchandise jox na la njëkk loolu la ñuy tuddee bayoon naqd mooy njaayum teew mu teew bu fekkente ne ñaar yëpp nag benn nekku fi da ne waxtaan ba juboo rek masalan da yor oto mooy la jaay ko ci 5 millions waaye nag fii ak at laa lay fay yow nag bàyyi dama lay bàyyi it nga dawal oto bi fii ak juróomi weer kon gis nga da ngay na waxtaan ba jubo rek joxe joxewoo prix mom tamit joxewul marchandise loolu lañu tuddé ad daynu bid dayn loolu nak barina ay xeet barina ay façon barina na yu ci aram bu fekkante ni gi lañ maanaam joxe nga marchandise waye daf la fayagut loolu lañu wax njaay mu am délai al bay'u ila ajal lañ ko tuddé wala ñu tuddé ko al bay'u mu ajal wala ñu tuddé ko bayon nasia nga xamne da ngay joxe marchandise mu tew mu tew waye nak njëg gi da ngay xaar doo ci jotagul bu ko defee njëg gi ni mu la koy joxee mën na la koy def par ndànk-ndànk mën naa dem it bu jox la benn délai boo xam ne bu jotee da lay jox noom njëg gi yëpp bu fekkente ne li ngay jaayante ak li ngay jëndante benn bi dafa nekk xaalis benn bi nekk or wurus wala ñoom ñaan ñëpp nekk bu boobaa mën nañ ko seet la ñetti xaaj loolu saa yoo xamee ne euh, wurus ak xaalis ci diggante wurus ak xaalis ak wurus ak xaalis ci lañuy ñuy jëflante rek loolu boroom xam-xam yi dañu ko tuddee bayul ayni bil ayn waaw bu fekkente ne jëfandu jëfandiku jëflante wuñ ci xaalis waaye da nga ko jox marchandise mu jox la marchandise loolu la ñuy tuddee bayul ardi bil ard bu fekkente ne da nga koo jox xaalis mu la jox marchandise loolu la ñuy tuddee bayul ardi bil ayn boo ko joxee or nag mu lay jox or wala nga ko jox xaalis mu lay jox xaalis wala nga jox xaalis mu lay jox or loolu am na ñetti xaaj am na ñetti xaaj bu fekkente ne ñaar yi dañoo wutee nga xam ne wurus nga koy jox mu jox la xaalis wala nga jox ko xaalis mu jox la wurus loolu day tudd ci day tudd ci day dugg ci sarf mi ngi mel ne tey suñu jamono jii dañ naan bu fekkoon ne da nga koy jox euro mu lay jox CFA wala nga koy jox dollar mu lay jox dirham loolu sarfu lay tudd maanaam weccee lay tudd waaye dugg ci njaay weccee nag moom it dafa am ay àttee boppam bu fekkente ne li ngeen ko li ngeen joxante ci wurus ak xaalis dañ koo peese loolu lañu tudde muraatala bu fekkee dañ koo wàññi joxe ko loolu lañ tuddee mubaadala bu fekkee li ñuy jaay moom it mën nañ koo seetle ci bu ñu xoolee ndax euh, kiy jënd gis na li muy jënd wala gisu ko bu fekkente ne gis na ko loolu la ñu tuddee bayul xaadir bu fekkee gisu ko loolu la ñu tuddee bayu gaayib wala bayul gaayib bu ñu xool ndax bu ñu jaayante bu ñu jëndante rek kenn ku ci dangay dem sa yoon choix amu ci bu fekkente ne choix amul deltu ginnaaw amut loolu la ñu tuddee bayon bayon bat bu fekkente ne nag da nga ne ko jaay ma damay jënd waaye nag bu ma xoolee arrangé wu ma damay deltu ginnaaw loolu la ñu tuddee bayonul xiyaar mooy njaay moo xam ne dafa am ak tànn bu fekkee li ngay jaay ak li ngay jëndante euh, da ngaa dañu dañuy xool prix bi nga ko jëndee woon yow mi koy jaay wala boo xooluñ ko moom it mën nañu mën nañ cee amaat ay façon njaay yu wute bu fekkente ne kiy jaay dafa ñëw ne la lii nangam laa ko jënde nangam la ma dikkee noonu lañ koy waxee fii ci wolof marchandise mi nang téléphone bi fukki junni la ma dikkee waaye nag bëgg naa ci ñaari junni muy fukki junni ak ñaar laa ko jaayee loolu la ñuy tuddee bay'ul murabaha bu fekkee ne daf ne la fukki junni laa ko jëndee ku ma joxaat fukki junni ma jaay la ko loolu lañu ñu tuddee bay'u tawliya bu fekkee daf na la fukki junni laa ko jëndee waaye bu ma ci amee juróom-ñetti junni jël loolu la ñu tuddee bay'ul wadi'a kon gis ngeen ne atte yi njaay yi mën naa wuute lool ci ni xeeti njaay yi wuutee bu ñu xool ndax njaay mi wér na wala wérut tamit mën nañ koo seetle ci njaay mu wér ak njaay mu wérut li ñu tuddee bayon saxi al albayon saxih ak al bayon kon loolu ci gàttal mooy xeeti njaay yi am ci gàttal léegi nag euh, fi ñuy dooree waxtaan wi mooy dañoo bëgg a xam le ne lii cosaan ci xeeti jëflante yépp ak xeeti aada yépp mooy dafa dagan moo tax suñu waxtaan wi ñu nar a waxtaane lenn ci ay xeeti njaay wala xeeti jëflante ci jaay ak jënd yu araam li ñu war a njëkk a xam mooy liy cosaan ci jëflante yi mooy ak dagan al aslu fil muamalat al xill kon bépp charte bu ñu chartante boo xam ne gisuñ texte bu koy araamal nañ jàpp ne charte boobu dagan na bépp accord bu ñu bépp contrat bu ñu jëflante te gisuñ lu koy araamal benn texte bu koy araamal texte bu leer bu sax nañ japp ne lola dagan na kon li ciosan ci jëflante yépp moy dagan lo ci gis ñu araamal ko rek dafa fekk ne dafa am illa ju tax ñu araamal ko illa yi tax ñu araamal nak bari na danañ ci ñew legi ci kanam inshallah tom bi ci tege moy njaay mu dagan ak njaay mu deganut lan mo len wutale bu ñu ci bi ñu tuddé al furuq bu al al qarafi nga xam ne dafay indi ay farq leen lu ci na mu wax la la ko teqaleeg la neen am na ca farq boo xam ne daf koo tuddee al farqu bayna qaaidati maa yajuusu bayuhu wa qaaidati maa la yajuusu bayuhu mu ne li nga xam ne dagan naa jaay mooy lu dagan a jaay bu ñu la ko waxee mooy loo xam ne juróomi sart yi daje na ci sart bi ci jiitu mooy na laab daane ndax yonente bi salaa salaam ñëw na ci saxiixul buxaari ak saxiixu muslim yonente bi ne yàllaa ko yonenteem araamal nañ jaay sàngara araamal nañ jaay médd araamal nañ jaay mbaam xuux araamal nañ jaay xërëm nee na saxaaba yi ne ko yow yonente bi yàlla bi ah ñun kat dañoo gis ne lu mel ne resu médd yi gaay yi dañ koy jël di ko peinturer seen gaal yi waaye di ko niitoo di ci def làmp yu leen di leeralal yonente bi ne leen yàlla rëbb na yahuud ya ndax dafa araamal ci ñoom res resi res mbaam xuux yi dafa araamal ci ñoom resi medd yi ñu wëlbatiku ñoom di ko jaay di lekk njëg loolu dafa am qaida fiqhiya buñ ci mën a balloo te mooy lépp loo xam ne araam na lekk léeg-léeg day araama jaay lu ci bare bari day araama jaay kon sart bi ci njëkk li nga mën a jaay mooy day laab li nga mën a jaay it day nekk loo xam ne lislaam day nangu ku ko jariñoo ku ko jariñoo léegi wala ku ko mën a jariñoo ji ëllëg li nga mën a jaay ñetteelu charte bi mooy day nekk loo xam ne mën nga koo joxe waaw bu ñu la indi nga ne am li nga mën a jaay charte bu ñeenteel bi mooy day nekk loo xam ne yéen ñaan ñëpp xam ngeen ko yow miy jaay xam nga li liy jóge ci sa loxo ak li war a delsi ci sa loxo moom mi jënd it xam na njëg gi mi génne ak marchandise mi war a dugg ci loxoom juróomeelu charte bi mooy na ngeen ko moom lii nag ci fiqhu Maalik dañ naan charte la fil jawaaz wal luzum loolu mooy lan moy al fuduli ki ñu tuddé al fuduli ta moy ki nga xamné da dem fekk alali jàmbur dem jaay ko wala mu fekk la nga tek sa alal mu dem jël ko dem jëndal la ci dara ta amu ci sa ndigal ci fiqhul malik dañ nan ko lim def arab na waye nak njaay mi werna njaay mi werna moy bu ko borom woyele mu woy bu ne bu mu woy ñu ñu yaq njaay mi kon euh, maalumiyatu euh, milkiyat asaman wal mabi' شرط لا تي جواز البيع اك لزومه لن مو من ياقم جاي كوم واخ نان لي مانا ديفار ام جاي لان موكو من ياق بون ديمي تي كن واخ خادي عبد الوهاب البغدادي كتير تيرم بوب ني التلقين داف ني واخ جاي موجس غيس لا تي جوسان موي دغان لول لا فخون لغي جيفلنت لا تي جوسان موي دغان كل بيع فالاصل فيه الجواز daan lu ci luñ la ci tere rek xamal ne dafa am sabab illa ma bi bihi darbun min durubil man'i daan la nag li yàqum njaay mën naa am ci ay anam am njaay li ko yàq léeg mën naa dellu ci li ñuy jaay lu mel ne nga bëgg a jaay loo xam ne lislaam dëgganalu ku ko jaay lu mel ne jaay sàngara comme ni ñu ko waxee woon léegi jaay mbaam xuux bu dee ab julit sañu koo jaay ab julit مرحبا من والقنزير في حق المسلم جاي خيط صبي صبي نكم نكو جاي في فقه نيب نياري خيط لا امنا لو نيوخ نجيس مي لو خني جيم جي موم صبي لا امنا سي لو خني دنجكو واخ متنجيس لو صبي لو صبي موميت كوم نين كو خامي في فقه خيط لا امنا سي لو صبي لو خني لا دوغ لا جا دوغ مون نكو صبي سا امنا سي لو خني من نكو صبي سا لو خني كين مون نكو تاخالي صبي ولا بوك يالا دوكو بيندي مو نيكو لو صبي لو لو كين دوكو جاي loo xam ne mënees na koo tàqaleeg sobe nag mënees na koo jaay bu ñu dindee sobe sa niki noonu loo xam ne kenn mënu ko jariñoo comme ni ñu ko waxee woon léegi mu ne lu mel ne ab xaj boo xam ne doyowoo ko dara dafay araam nga jaay ko xaj boo xam ne mën nga ko dawkat boo xam ne nag amal na la njariñ dalay garder wala nga koy rëbbee boobaa dagan na nga nga jaay ko ak donte ak wuute am nañ ci ci biir masab bi waaye wax ji gën a siiw mooy dagan na nga jaay ko lii tax njaay du baax am na ci loo xam ne day dellu ci li ñuy jaay mooy ci marchandise mi mu ne am na ci loo xam ne day dellu ci njëg gi li nga koy jënde lu mel ne mu nekk njëg goo xam ne lislaam dafa araamal ku ko jëflantee ak waneen xeet am na ci loo xam ne day dellu ci ñaar ñi séq njaay mi ak njënd mi lu mel ne xale xale bu jaayee wala mu jënd koo xam ne yaramam dafa neexut ab dof bu jaayee wala mu jënd njaay ma ak njënd ma wérut njaay ma ak njënd ma wérut waaye nag da cee teg lu am solo fii mu ne aw xayri aalimin bil bay koo xam ne xamut jaay xamut àttee jaay loolu waxoon nañ ko léegi ku xamut àttee jaay lu jaay wala lu jënd wérut aw mahjur alayhi wala koo xam dañ ko yiir koo xam ne mu xamut ni muy saytoo alalam wala mu nekk xale wala mu nekk ku yaramam neexut bañ yiir ko ba nga xam alalam am na kuñ ko dénk mu ko koy protégeel kooku lu mu jaay wala mu jënd léeg-léeg dañ koy teree mu jaay léeg-léeg ñu ne ko li nga jaay baax na waaye balañ koo mën a wéyal dañuy laaj sa kilifa gi nga xam ne mooy saytu sa alal ñeenteel bi ci li mën a yàq am njaay am na ci loo xam ne day dellu ci jëmmi accord bi contrat bi biñ biñ biñ biñ déggoo am na ci contrat yoo xam ne lislaam moo ne kenn sañu cee jëflante lu mel ne riba lu mel ne li ñuy tuddee xarar danañ ci ñëw léegi lu mel ne li ñuy wax musaabana lu ñu lu mel ne jaay moo xam ne en même temps da ngay jaay ba noppi di leblewaale loolu yi danañ ci ñëw léegi juróomeel bi te mooy bi ci mujj mooy bokk na ci liy mën a yàqum njaay mooy njaay moo xam ne ni nga ko defee barab bi nga ko defee wala waxtu wi nga ko defee moo tax njaay mi baaxut lu mel ne ki fekk moroomu jullitam waxtaan bay waaj a déggoo mu ñëw fay prix bu gën a ngande prix bu gën a cher prix bu gën a bari pour ñu jaay ko ku mel noonu ni mu ko defee moo tax bu ñu ko jaayoon wala ñu jënd wala wala mu jënd du dagan li ñu tuddee bay on naj bay on najis mooy njaay moo xam ne kii jënd bëggut a jënd dalaa fekk ngay waxaale diw sàngam mii mu ñëw ba ci wet gi ne la ñaata nga ko jaayee nga ne ko ah man de 40 000 rek laa ko wax mu ne la ah man lii mën naa la jaay sax 50 000 fekk na boobu parewut moom pour boo ne ko woon indi cinquante mille yi mu fay la ko waaye day yokk prix bi ngir kii jënd mën a mën a jënd waaw loolu dañ naan bu ko jaaykat bi xamee ñoom ñaan ñëpp bàkkaar bu ca am ñoo koy bokk bu jaaykat bi xamu ko nag tey njaay mi dañ koy tiri dañ koy dañ koy yàq bu fekkee jaaykat bi xamu ko nag xamul ne waa ji da koy tegal diir bu boobaa waa ji ko def rek moom mooy amee bàkkaar bi ni ngi koo xam ne dafa nekk ci buntu marché bi marchandise muy ñëw rek mu kar ko gaaw jënd ko ndax xam na ne ñi indi marchandise xamuñu li xew ci marché bi ngir bëgg tayit bëgg na koo xañ waa marché bi tax xay na mu koy def ku mel noonu njaay yu mel noonu tamit ni nga ko defee defin wi moo ñaaw moo tax lislaam danaan bu boobaa waa marché bi dañ leen di woo ne leen diw sàngam ñii kar na ku fi doon ñëw doon fi indi ay toni ceeb wala ku fi doon ñëw doon fi indi ay conteneur léegi nag yéenay xool lislaam may na leen lim lim jëndoon lépp ngeen bokk kook moom kenn ku ci ne masalan bu ñu ne woon dafa am tonu ceeb bu yomb bu jóge woon dëkk sàngam nga dem kar ko ca frontière ba dem jënd ko boo ñëwee ba ci biir dëkk bi dañ naan commerçant yi jaay ceeb yépp dem leen ku ca bëgg jox ko lu toll ne la mu ko jënde woon mu jox la loola ndax dalaa dalaa xañ àq joo xam ne mënoon nga cee jot bokk na ci jaay yi nga xam ne ni nga ko defee mooy tax wala boog barab bi ñu ko defee wala waxtu yu ñu ko defee mooy tax mu araam mooy jaay ci waxtu woo xam ne dañuy noddu ajjuma ci koo xam ne julli ajjuma da koo war ñaar ñu julli ajjuma war suñu ñoo jaay ci waxtu woo xam ne nodd nañ ba noppi wala boog ñu ngi noddu nodd gu mujj wala boog kenn ki julli ajjuma war ko ki ci des julli ajjuma waru ko kon it ñoom ñaar sëñ ñoo jaayante wala ñuy jëndante bu fekkente ne ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku ci ne ci ñoom ñaar julli ajjuma waru leen sëñ nañoo jaayante sëñ nañoo jëndante léeg-léeg laaj yu mel noonu di am ñu lay laaj naan la jigéen ak jigéen bu ñuy julli aljuma ndax mën nañoo ak jëndante mën nañoo ak jëndante ñi ñuy tere ñuy ak jëndante mooy ñi nga xam ne aljuma da leen war bu dee ñoom ñaar ñëpp la wala boo kenn ki aljuma da ko war loolu it lu ma ta bàyyi xel ku jaayante wala mu jëndante ci waxtu aljuma comme niñ ko xamee ci fiq dañuy tiri njaay ma kon buñ doon tënk dañuy wax ne jaay ak jënd liy tax mu wér ci ni ko imam zaruq waxee ca téeréem ba ñuy wax an nasihatul kafiya liman qassahu llahu bil aafiya dafa wax ne jaay ak jënd am na ñeenti farata ñeenti ponk ñeenti yu ci mënta ñàkk mooy yow miy jaay ak yow miy jënd na ngeen xam marchandise mi ngeen di jaayante ak mi ngeen di jëndante moomu bu dee ab téléphone nañ ko xam nañ xam ban téléphone la it bu dee ceeb nañ ko xam bu dee diw nañ ko xam ban façon diw la istiwaau ilmihima bisilaati ñaareel bi mooy nañ xam njëg gi nu mu toll nañ xam marchandise mi ni mu toll nañ xam njëg yi ni mu mel ndax xaalis ngay fay ndax diw nga koy joxaat ndax ceeb nga koy joxaat ila axirihi na nekk it loo xam ne dagan nañu jëflante ci na nekk barab boo xam ne dagan nañu jëflante ci na nekk mbir moo xam ne dagan nañu jëflante ci looloo tax looloo tax ma naan wa kawnuhu mimma yubaaxu taamulu bihi wa fiihi ñoom ñaar ñëpp it kenn ku ci ne ñoom ñaan ñi jaayante ak jënante kenn ku ci ne na bëggal moroomam li mu bëggal boppam lii imaam sa ruux dong waxu ko waaye boo demee ci Ihya Ulumuddin imaam Ghazali da koy wax danaan la booy xool njaay yi araam ak euh, jëndante yi araam daanaka li koy tënk mooy saa yoo gisee ñu jaay wala ñu jënd ci anam goo xam ne dalay leer ne kenn gi dafa bëgg a moroom ji nga xam ne bu nekkoon ci palaasam du ko def xamal ne njaay moomu dëgganut waaw kon ñaare njaay mi ñu la wax dëgganul rek jàppal ne exploitation da cay am léeg-léeg léegi lan moo war a mën a tax am njaay araam bu ñu demee ci téere bi ñu tuddee bidaayatul mujtahid bu imaam ibnu rushdu al jad al xafit dafay wax ne moom nee na bu ma la doon tënkal yi mën a tax ñu tere jaay mën naa la ko tënkal ci ñeent bi ci njëkk mooy léeg-léeg ñooy la lii boo ko jaayee day bu wér ndax lan ndax jëmmi loola la lislaam araamal ko ko jaayee lu mel ne mbaam xuux ak sàngara ak yi ma fi wax léegi ñaareel bi mooy riba léeg-léeg riba dana tax ñu tere am njaay ñetteel bi mooy xarar xarar danañ ci ñëw danañ ko yaatal ñeenteel bi mooy charte boo xam ne ci biir njaay meeg njëndante bi ngeen sartante ci loo xam ne dafa ñuy yóbbu ci riba wala mu ñuy yóbbu ci li ñu tuddee xarar daan nag léeg-léeg ñu tere la ci am njaay loo xam ne delluwut ci ñeent yi waye dafa rax njaay mi ba tax ñu tere lako lu mel ne te ñu koy tudde tricher tricher manam waji xeyna marsnis mi mi jaay dagan na xëy riba amu ci xeyna gharar amu ci xeyna na charte bu koy yàq amu ci waye la tax baxut moy mbir la amrun xaariji la an anil muamala agit lor leg leg li tax ñu nan la li ngeen jaayante ak li ngeen jëndante dafa aram moy lor mo ci am man nag danaa tënk ci ñeent yi mooy li ñu tuddee xarar li ñu tudde riba li ñu tuddee riche ak li ñu tuddee ixtikaar te mooy te mooy exemple barar bi mu wax fii lor ji xarar xarar daanaka façon njaay yi ngay gis rawatina suñu njaayu jamono ji li koy yàq lu ci baree bari mooy li ñu tuddee xarar xarar mooy lan xarar bu ñu ko waxee ci fiq mooy loo xam ne ay risque da cee am xamuñ ndax dana sotti wala du sotti loolu mooy xarar nga xam ne taraddud da ciy am na am rey ni waaw yow daal risque rek nga demee dañ naan nag ñoom dañ naan li ñuy tuddee xarar saa yu baree ci am njaay ba njaay mi foo rek seetlu ci risque yooyu seetlu ci danger boobu seetlu ci exploitation boobu dañuy jàpp ne njaay ma dëgganut dañuy jàpp ne njaay ma dëgganut bu dee xarar bu néew nag exploitation bu néew boo xam ne moom munta ñak ci njaay yeeg jëneenté yi léeg-léeg ñu nax la nax bu neew bo xamné da nga xamné c'est normal lool mom taxut am njaay ñak wër wayé buñ la exploiter ba nga yëg ko loolu day tax njaay mi du wër loolu lañu nak mën na am ci jëmmi pas-pasu njaay mi am na lu ñu urbun bayoon orbuun dana ñëw ci kanam Euh, xarar kon saa yu amee wala li ñu en bay'atayni bay'ataani fii bay bay'an mooy ñoom lañ koy misaale nit yor ab portable masalan ne la bu ma la koy jaay teew mu teew mën naa la ko jaay juróom-benn junni bu ma la koy jaay nag nga war maa fay fii ak ñaari weer mën naa la ko jaay fukki junni yow nga jël ko nga jékki jekki rek jël ko waxooñu ndax juróom-benn junni yi ci nga d'accord wala ci fukki junni Lol mooy bayang tani fi bayang waaw bu fekkonté né am da nga fixé nga prix bi nga d'accord bu da na dagan day dugg ci euh, anam go xamné dañ ko wax inshallah allah leg exploitation bi man na am ci wala marchandise mi wala mo am ben ci ñom ñaar loolu man na am ci anam yu bari lu mel nit jaay la lo xam ne ne ko andi do ko mën jox wala nga jënd lo xam ne bu ñu laa bi do ko ñoom fuqaha yi dañ ko daan misaal ci jaay giléem goo xam ne dafa ndàngaañ giléem gu daw koo xam ne kenn xamut fu mu nekk wala nga jaay pittax moo xam ne daf laa réer ah? wala nga jaay yére boo xam ne dañ koo sàcc te feeñagut loolu xudra ala taslim mënu cee am njaay mu mel noonu dëgganut léeg-léeg ak réer da koy waral umpule umpule gi nag moom it bari na ay xeet léeg dañu dañuy umpule umpule mën naa am ci njëg gi mën naa am ci marchandise bi boo jékki-jékki woon wax nit ne ko jaay naa la li ci sama poos li ci sa poos xamut lu mu doon njaay mu mel noonu ci lislaam dëgganut wala mu jaay la dara nga ne ko faye naan li ci sama poos li ci sa poos mën naa am mën naa tolloog prix bi mën na koo ëpp mën na koo yées lu mel noonu dëgganut dañoo war a xam tamit euh, li ñuy jaay moo xam muy prix moo xam muy bi dañoo war a xam ni mel boo ne ko woon jaay naa la sama yére ba ca kër ga du xam ndax sa léngoo ba ngay wax du xam ndax sa jasineer ba ngay wax du xam ndax sa perkaal ba ngay wax lu mel noonu dëgganut damay commencé tënk ndax waxtu waa ngi dem dañoo war a xam tamit ni mu toll bu ñu xamee ni mu mel ba noppi dañoo war a xam ni mu toll ñu boo gisoon nit ne ko kaay ma jaay la sama téléphone bi mu la loo ma koy jaayee nga ne ko li ko waa marché bi jaayee njaay mi dëgganut ndax lan mën am lañ koy jaayee yow mii jënd ba tey xamagoo nu mu dañoo war a xamit euh, li ngay jënd ndax mucc na wala muccut bu fekkente ne day loo xam ne dangaa jënd loo xam ne masalan dangaa fekk ku jëmbat am njëmbatam commencé gu ta jeeb bi mu jekk-jekki jaay la ko bayon samara xab xabla xabla euh, salaaxiha lu mel noonu daganut ndax xamoo ndax dana meññ wala boog du du meññ xarar tamit dana amee ci li ñu tuddee ximaar carte ñoom carte dañ ko daan misaale li ñu tuddee bay'ul munabasa nga xam ne dalay sànni yéreem dalay sànni am mbubb nga sànni ko mbubb kenn ku ne dem sa yoon nga xam ne lem mi du ci am xool du ci am saytu du ci am daanañ ko tuddee daanañ ko misaale bay'ul mulabasa mulamasa nga xam ne dafay teg day teg ay yére yu bari yow boo ñëwee boo ci laal rek da ngay fay prix force léegi bi nga laal mën na laa gënal mën na la bañ a gënal loolu ximaar la carte la daanañ ko misale bayul hasad ko xamne day yor aw xeer leg bo ñewé di jënd xeer wi bu ko bayé yëri bu mu dal rek moy sa moy sa sens wa lu mel noonu it dëgganut moo tax boo ci ibn rushd ibn rushd al jadd ci téréem bi ñu wax al muqaddimat al mumahidat wax na fa wax ju am solo da fay wax ne jaay ak jënd sa yo gisé borom xam-xam yi wuté ci wuté gu bari la tax lay waral wute gi mooy dañuy xool ndax xaraar am na ci wala amu ci ndax xaraar bari na ci wala bariwu ci ndax naxaate bari na ci wala bariwu ci ñaare bu ci naxaate amul rek wala bariwu ci rek njaay ma day dagan waaye saa yu ci amee rek saa yu ci baree rek ñoom ñëpp dañuy dëppoo njaay mi araam na saa yoo xamee ne bariwut néewut lu mel noonu mooy indi ak wuute ndax mën ngaa jaay wala wala mënoo jaay kon loolu lenn la ci lii tax ñuy tere njaay muy xarar bokk na ci li tax ñuy tere njaay mooy riba ak façon ribaa bu mën a doon moo xam da ngeen a weccoo ñaar yoo xam ne nangu xaar nangu wut xaar wala boog ngeen weccoo ñaar yoo xam ne nangu wut ëppalante wala boog riba boo xam ne dafa juddoo ci bor waaw nga lebal nit ki ñaar téeméer mu fay la ñaar téeméer ak juróom fukk ci loo xam ne da koo sart da ngeen koo sartante wala boog day aada ci yow dañ laa xamee xam nañ ne daal ku ñëw ci yow nga lebal ko waaye bu lay fay dalay yokkal lu mel noonu day dugg ci riba wala ñoom li ñu tuddee daan wa ta'ajjal nga xam ne nit da nga koo lebal fukki junni bàyyi nga ne ko bu weer wi deewee bu weer wi deewee nga may fay nga bàyyi bala 15 nga xaw a banque rek dem ne ko jox ma juróomi junni léegi bor bi wàcc la mooy jox ma léegi bu ko defee nag la nga waroon a fay ma nga xam ne charte lay doon nga xam ne jox gi mu lay jox léegi force da koy jéggal juróomi junni yi ca des loolu la ñu tuddee daan wa ta'ajjal loolu it xeetu riba la kon riba dana tax jaayante ak jëndante araam li ñu tuddee riche riche nag mooy tricher mooy nit nëbbu ci njaay mi loo xam ne bu ko leeraloon kii jënd day deltu ginnaaw moom tricher moomu nag nit dana ko def ay société danañ ko def kuy def marketing dana ko dana ko def rawatina ñiy def publicité yu mel noonu kon riche dafa araam yonent bi sallallahu xam ngeen ne xadis boobu nga xam ne ñëw na ci saxiix ñu ne dafa ñëw fekk ku taaj aw ñam ëmbub ñam mu dugal ci loxoom fekk mu tooy mu ne borom ñam wi lii lan la mu ne ko dafa tawte mu ne ko lu tee li tawte nga jeqi ko ba mu tegee ci kaw kuy jënd bu ñëwee mën a am suwaam mën a xool ba xam day jënd wala boog jëndut loolu ci riche la bokk riche nag bari na anam yu ñu ko defee léegi loolu bokk na ci melal am njaay di ko rëyal di ko duufal fekk melut noona wala nga fekk kuy jaay dara nga xeebal ko nit ñi sabooteel ko nit ñi bañ bañ deltu ginnaaw loolu lépp ci xeetu riche la ci xeetu triche la mumaarasa la bu araam fekk njaay moo xam ne amul qualité ngay wan nit ñi ne am na qualité léeg-léeg nga dem àbbi turi turi jàmbur taf ko ci njaay bi wala nga jaxase lu baax ak lu bon lu mel ne kiy jaay ndox mu neex bu ko raxee ak ndox mu naqari loolu triche la waaw wala ngay jaay loo xam ne xam nañ ne du original nga dem taf ci taf ci ay ay taf yoo xam ne day wane ne original la loolu lépp xeetu triche la dafa araam ci lislaam ixtikaar ak kanz moom it dafa araam damay tënk rek ixtikaar nag mooy rënk marchandise mu nit ñu soxla rawatina boo ajoo ci ak dund waaw jël ceeb bu baree bari denc ko fekk nit ñi soxla nañ ko wala nga jël gerte gu baree bari denc ko fekk nit ñi soxla nañ ko waa nga xam ne te ci yow rek lañu ko mën a amee ci yow rek lañ ko mën a amee loolu la ñuy wax ixtikaar lii may wax nag am na ci xadis boo xam ne imaam Malik nettali na ko ci Muwatta boo demee ci saxiixu muslim am na ca xadis bu mu nettali boo xam ne danaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam danaan laa yaxtakiru illaa xaati kii rënk marchandise mooy kii def bàkkaar waaye bu ñu demee ci sarakati xadis yi lu mel ne téere bi ñuy wax al mufhim المفهم بو ابن ابن آه، ابو العباس القرطبي ديف بوك تك نك قرطبي ميغا خاني مفسر لا داف لاي واخ ني بونيو خوله با خول دال احتكار بي ارام موي احتكار بيغا خاني دافا اديو تي مارسينيس مو خاني نيت ني بون كو امول داني لورو تا ياو رك ياكو في ام تا مو فك nga جيندي كو تي مارسي با غير بكو جايت نيتي شارتي داي ام تي مارسينيس ني سوغلا ني سوكو مانا تودي احتكار موي دنج كو جيندي تي مارشي با danga koy denc ci fekk nit ñi soxla ko waaw da koy fas yéenee jaayit lu mel noonu saa yu amee dañ naan la dañuy dañ lay forcer dañ lay forcer nga jaay ko bu fekkonte ne jëndiwu ko ci marché bi nag dañu la koo may rek bu la neexee dencal bu fekkee jaay laa jugit da nga koo jënd ngir dunde ko yow wala ngir dunde ko yàgg sa njaboot ba tey boo ko ixtikaaree loolu duñ ko tudde sax ixtikaar waaye iddi xaar lañ ko tudde ndax wér na ne yonent bi sallallahu daana denc ak dundam ak dundu njabootam lu mat at wala lu ko ëpp kon daal lii euh, am na lu ñuy waxi këns këns moom ci alal lay jëm ixtikaar bu ñu ko waxee marchandise la ñuy la ñuy denc la ñuy rënk bu dee këns nag mooy ki nga xam ne dafa téye alalam nangu cee génne asaka nangu koo def ci yoonu yàlla nangu cee joxe dépense yu doy loolu la ñuy wax këns mooy rënk rënk moom dafa araam boo seetloo ixtikaar ak këns dañoo jàkkaarloo ab kat mooy def ixtikaar ab kat mooy def kënz waaw kii jaay mooy lànk denc lu nit ñi soxla waaye kii consommateur bi nga xam ne moom mën naa génne alalam mu circuler ci kanamu mbooloo mi kooku mooy def kënz moom it dafa aram gis ngeen ni ko lislaam araamale ci alxuraan di wax naan ñi nga xam ne dañuy rënk wurus ak xaalis duñ ko dépensé duñ ko dugal fi mu war a dugg suñ borom da leen mbugal mbugal mu metti wallazina yaknizuuna aldahaba walfidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كن لولو لين لا تي لوني مانا تانك تي لي مانا تاخ ام نجاي ياخ تا واخنا كو ليك موي غرار دي ربا دي غش دي احتكار ولا موي كنز داماي موجي اي خيتي جاي يو سيو يو ني ديف ني خول نك ني بغا خول نك لا تي داغان اك لا تي داغنوت njaay mi may njëkkee mooy njaay mi ñu wax bayul ghaib ala sifa mooy kii jaay lim lay jaay nekku fi waaye dala koy melaloon rek lii nag ñu baree bari ñu ngi koy def nañ xool ndax dagan na wala daganut masalan ab oto la lay jaay oto baa ngi war a jóge Amérique yow gisoo oto bi waaye dalay wax oto bi li ci am yépp dalay wax marque bi dalay wax couleur bi dalay wax état moteur bi dalay wax lepp bayu al ghaib la ala sifa dagan na wala daganut ñaarel bi moy njaay mo xamne dang ko nga ba nopi lim lay jaay njëkkoon ko gis masalan yaangi touba moy la kérok ba nga ma ganesee bi um bing ma ganesee gisoon nga auto bi ci bi won ci bundu keur bi nga ne ko waaw mais la mom la la bëgg jaay nga waye fi ne ni fi ngay jaayante fi ngay jëndante mom auto bi teewut loolu lañu wax al bay'u ala ruya sabiqa ñaari façon jaay yooyu dagan na waye nak day am ay charte charte bi ci jitu dañuy wax ne na baña sori lool na baña sori lool ab auto la lay jaay lum la man di jaay kër la lay jaay lum la man di jaay na baña sori lool ginaaw nek fi na baña sori lool ñom lutax ñu naan la na baña sori lool na dañuy bañ ak soppi ko am ci dañuy bañ digënté bimu la koy waxé ak biñ koy xolé bu doon auto nga fekk moteur bi commencé commencé manké masalan wala nga fekkoon nga fekk peinture bi rouss bu dé aw ñam nga fekk mu yaq kon dañ nan na baña sori lool ñom bu ñëk sori gi dañ ko daan misalé andalus ak afriqiya bu démé ci téré fiqi lool lañ lay wax légui nak am na ci marchandise yo xam bu yàggee soppi ko dajé am lu melni xéti fruit ak lujumi kon ku la doon jaay lu jum yoo gisut wala fur wi yoo gisut bu soree lool njaay ma baaxut ndax mën naa soppi ko soppi ko mën na ci am am na ci yoo xam ne gaaw da soppi ko lu mel ne ay pàkk ak yu mel noonu boobaa mën naa dagan léegi bu dee suñ jamono ji ndax distance yi dañ koy xool wala duñ ko xool wax naa fi léegi ku lay jaay oto bu nekk Amérique wala bu nekk Italie wala sax bu nekk réew yi gën a sori ndax boobaa dañuy xool distance wala duñ ko xool boroom xam-xam yu bees yi dañ ne distance léegi di mënees na koo bañ a xool bu jafe-jafe amut ki lay jaay oto wala mu lay jaay ay lal wala mu lay jaay matériel bu mu mën a doon bu fekkee fam la ko jaayee daa sori loolu waaye nag mën na la koo libéré ci lu gaaw dagan na ndax soppi ko mën na ci bañ a am bu fekkee gàllankoor dafa am nag lu mel ne pour mu andi la ko day aajo mu am visa te lijjanti visa yombut boobaa moom du ngeen sañ a jaayante ci loo xam ne teewut ñaareelu sart bi kon na baña sori lool mooy sart bu njëkk ñaareelu sart bi moy na baña jégué lol lool waaw suñu am di mii bu doon jaay dara tay mané ko ana mu ne mo ngi ci kër ga dañ nan ñu kon boba señu lu ko melal la dang koy gisi force dang koy gisi ndax buñ nan la bayul ghaib day fekk lo xamné ne pour nga juk séti ko day jafé waye lo xamné ne mi ngi tew faaw dang koy gisi waaw bu fekkene ne da nga ñew nak mu tégal la ko ne la mi ngi ni nga ne ko ubbil ma xool mais la ah day loo xam ne bu ma ko ubbee mën naa yàqu wala day yére boo xam ne bu ma ko lemmee lemaat ko mën naa bañ a yomb boobu waa dagan na nga jaay ko ci ci ni nga ko gisee nii rek ñim la ko melal rek kon ay xeetu jaay la yoo xam ne dagan na kon loo xam ne dañ koo paqueté wala ñu saañ ko donte teew na sax mën nga koo melal rek ne ko li ma la wax moo ci am boo ko ubbee nangam ak nangam ak nangam ak nangam nga koy fekk ki lay melalal am njaay tamit bokk na ci charte yi mooy na la melalal lépp bu mu yam rek ci wax la ban xeetu ban fas ban xeetu marchandise la wala ban qualité la am waaye da lay wax lépp masalan bu doon pàkk la lay jaay boo gisut faaw mu wax la pàkk bi fan la nekk ñaata meetar la lan moo ko féete kanam lan moo ko féete ginnaaw ndax suuf sam nekk suuf suy taa la ndax du suuf suy taa bu dee kër guñ tabax faaw mu wax la lañ ko tabaxe ndax ci mool yu baax yi lañ ko tabaxe mool yi di guddoomu yi wala boog tabaxu ban la ilaa axiri yi faw aw saaf yépp da koy wax ndax dañ naan la danga war a wax lépp rek loo xam ne mën naa tax bëgg-bëggam yokk walla mën naa tax mu bañ lépp da ko war a wax ñetteel bi mooy ki lay jaay kii loo xam ne dala koo melal rek sëñu laa wax ne la faaw danga may jox njëg gi léegi sëñu ko bu ngeen waxtaanoon ba juboo nag nga ko doon jaay ab pàkk bu nekk ca sexaw ga masalan wax ko ko ba mu wax ko ba mu ba mu ne nangu naa bu boobaa bu jëkk bu jëkk-jekkee ne la njëg gaa ngi nii mën na maa teewal loolu dagan na moom waaye li daganut mooy nga ne ko faw danga may jox njëg yi léegi déedéet bu ko defee ci coobareem nag baax na loolu mooy al bayul gaib ala sifa wala ala ruya sabiqa bu fekkente ne dañoo bëgg njaay mi yam fa nga xam ne da ngay dem ma dem amatu choix bu fekkonte ne nag day njaay moo xam ne dala koy melalal nga ne ko ah dañu ciy teg condition danga naan ma damay def ni nga ma ko waxee li nga wax dégg naa ko léegi bu ma ko gisee nag mu arrangé ma njaay mi wóy na bu ma ko gisee arrangé wu njaay mi wóyut loolu mooy danga koo teg ci ak xiyaar bu boobaa moom nu ngeen ko defee baax na kon fi ñu lay tegal ay condition mooy bu fekkente ne dafa nekk li ñu tuddee bay'ul batt nga xam ne bu ngeen jaayante rek day dem mu dem waaye fekkente ne xiyaar da ca da caa am boobaa moom ay condition amu ci nu ngeen ko defee baax na waa kii la melaleel marchandise nag ba jaay la ko léegi boroom xam-xam yi dañ naan la boo gisee marchandise ma bu dee lu ñuy ubbi la nga ubbi ko bu dee lu ñuy xool nga xool ko bu dee lu ñuy dawal nga dawal ko ba gis ne nam la ko waxee woon noonu la demee boobaa njaay mi suñu tuccee del ginnaaw bu fekkee nag danga nga koo gis mu demee nu wuuteeg nam la ko waxee woon dañuy xool bu dee loo xam ne lu baaxoo am la waaw lu baaxoo am la comme ab oto nga ñëw fekk pneu bu peer te waxoon na la pneu pneu bi peerut xam nga ne pneu bu peer moom du lu du lu garaaw boobaa ba njaay bi day wéy bu fekkee da ngaa fekk nag danga nga faa fekk ay erreur ay ay ay ay ay njuumte yu baree bari da nga faa fekk ay défaut yu baree bari boobaa dañ naan la yaay xool bu la neexee lii nga xool nga génne ko ci prix bi bu la neexee bu fekkente ne sikki si dafa bari nga xàcc njaay mi nga def li ñuy wax rabdul bay kon façon njaay momu njaay mu lu bare bare la luy am lu bare bare la kon tay ab commerçant bu jek jek won ay conteneur ñewul ko ci kanamu am ne ko lip, lepp dama koy jaay jërul mu naan ko mu nan len yebbi len lepp ma xol bar ben par ben dedet man na len wax lu ci nek ñu jox ko catalogue mu euh legi nak bu demé ba yebbi bu demé nañ ko waxé won njaay mi day woy bu demee nu bokkut dañ ko waxee woon njaay ma du wëy ñaareelu façon njaay mi mooy li ñu tuddee albayon ala namuzaj mooy njaay moo xam ne dafa tegu ci ay échantillon ay échantillon rek la la jox wala albayon alal barnaamij njaay moo xam ne euh, catalogue nga yor te gis ngeen façon njaay yi léegi moo gën a bari buñ lay jaay télé buñ lay jaay frigo la naka lu luñ lay mëna jaay catalogue lañ lay jox catalogue bi ci ngay fekk lépp ci ngay fekk niñ koy utiliser ci ngay fekk garantie ci ngay fekk niñ koy talé niñ koy fayé ñaata at la mëna durer fan lañ ko wara tek teg ba du yàqu yu yëpp ci catalogue bi nga koy fekk njaay moomu la wax al bayu ala an namudaj wala al bayu ala al barnamij momi dagan na dagan na ci fiqhu malik waaw Euh, dama faral di am sax am na ci ñoo xam ne léegi sociétés yu mag yi ak entreprise yu mag yi ay échantillon la ñuy defar bu ñuy jaay ay tiise dañuy def dañ koy dagg dañuy def ay daggat yu baree bari def ci couleur yu wuute léegi nag yow boo ñëwee dagg bi ngay xool rek waaw daal man lii laa bëgg nga def nga nga nga nga xoolal ma ci nangami meetar bu dee ay sijaada la ñuy jaay masalan mën nañ cee defar échantillon bu ndaw yow ci échantillon bi rek ngay sukkandiku daan ne bii xoolal ma ci sijaada gu mag ëndil ma ci quantité bu toll nangam loolu it ci masabu imaam Maalik dagan na dagan na léegi nag liñ ko wax bu la ko indilee mu demee noonu njaay mi sañu koo xàccati day continuer bu fekkee ne daa ñëw nag manqué manqué moom dalay dolli la manqué bu fekkee daa ñëw ëpp yow yaa koy jox lam lam ëpp li may wax nag ñi ngi ko jële ci muxtasar xalil fi muy waxee naan wa jaaza bi ruyati baadil misli wassiwaan wala wassuwaan wa alal barnaamij am na beneen façon jaay mu siiw moo xam ne dana faral di am mooy li ñuy tuddee al bayu ala ruyati siwaan mooy jaaykati xaal yi jaaykati koko yi masalan jaaykati nen yi léeg-léeg nga ñëw masalan boo génnoon di jënd xaal ci mazhab bi dañ naan la xaal ji jëruñ ñu koy xolli déedéet jëru ko waaw moom mën nga koo jënd rek ci kaaw gi nii boo doon jënd gerte doone gerte gi faaw dañ koy xolli déedéet loolu lañ naan al bayu ala ru'yati sawaan moom it dagan na ndax bu bu fekkente ne kuy jënd xaal dañ lay xolli rek wala kuy jënd kooko dañ lay xolli rek wala kuy jënd am nen dañ lay tojal bu yàggee moom mii jaay da ciy gaañu nag wax dëgg yàlla waaw moo tax dagan na luy mel noonu nga jënd ko léegi boo ko jëndee fekke ko nañ la ko waxee woon njaay mi nu suñu too cee deltu ginnaaw boo jëndee lu mel noonu gis ne da ñëw fekk mu am ak wuute masalan jënd nga fa boo dee ko bëgg neen ku mel ni suñu am ni mi jënd nga fa ay paquet neen yu baree bari ñëw fekk fa ñaari neen yu yàqu loolu da ngay xam ne sa normal wala ñaari ñaari neen yu tocc da koy muñaale boo ñëwee nag programme woon cee omelette fukki fan yéeg ne juróomi fan rek nga ci mën a omelette boobaa sañ ngaa xàcc njaay ma kon naxe gi bu baree rek sañ ngaa xàcc am na beneen façon njaay muy am moo xam ne moom it ñu ngi koy def ci adduna bi yëpp moom la ñuy wax al bayu alal musawaraat mooy njaay moo xam ne day tegu ci plan ay palan lañ lay jox dañ lay jaay lu sotteegut da ngay gis entreprise wala nit ñoo xam ne dañuy dem jënd ay terrain yu baree baree bari dem fexe ba fay impôt yañ ca war a fay waajal ko ba mu ba mu ba rafet wutal ko ay plan léegi nag daa di daa di wax ne dañ koy jaay bu naan la dañ koy jaay dañ naan la kër lañ lay jaay léegi yow boo ñëwee di jënd boo ñëwee plan bi lañ lay jox dañ naan la fi ma terrain bi ma la bëgg a jaay fii la nekk kër gi nii laa ko bëgg a tabaxee nii laa ko nii la war a demee nii la war a yaatoo nii la war a gudde nii la war a wax la yi ci yi ci aju yëpp léegi yow booy jënd nooy def da nga naan waa léegi jënd naa ko waaye nag ba ma leen di fay dama leen di fay weer wu dee nangam njaay mu mel noonu jaay dalaa jaay lu sotteegut léegi nag moom entreprise bi wala moom nit ki mooy dem tabax yi kër ga bu dee kër bu dee magasin mooy dem tabax ko bu dee ay ay ay appartement mooy dem tabax ko bu dee boutique mooy dem tabax ko njaay mu mel noonu ndax dagan na wala daganut day mel ne borom xam-xam yi dañ ne dagan na dañ koy duggal ci duñu ñu istisna moy kon ki liggéeylu ni mi def rek xam nga boy liggéeylu ab armoire da ngay joxe da ngay joxe xaaliss ki ki lay liggéeyal moy dem jënd matériel moy liggéey loolu lañu ñu istisna bu fekkee da ngay jënd matériel bay ko muy liggéey rek loolu ijar lañ ko tuddee ijar kon ñu bare bari ci borom xam-xam yi nenañ dagan na dañ koy duggal dañ koy duggal ci aqdul istisna am na ñu ne dëgganut ndax bayul ma'dum la jaay loo amagut la waaye day mel ne ñu ne dagan na moo gën a bari am ñu ne bu ñu bëggee mu dagan dañ naan li ngay fay par weer duñ ko jox du dellu ci société bi wala ki moom projet bi waaye dañ dañ koy jëndee matériel yi dañ koy jëndee matériel yi loolu mooy tax mu dagan beneen façon jaay ci jaay yi siiw mooy jaayloo jaay loo jëndagut bayu maa laysa fii milki baa'ihi wala boog li ñu tuddee bayu maa laa yamlik jaay loo jëndagut ndax dagan na wala daganut danañu dal ñun ñëpp léeg-léeg ñu dem ci ab place fekk fa kuy commerce ñu ne ko nangam lañ bëggoon mu ne ñu fi ne ñii de nekku fi fi ne ñii de nekku fi moom waaye nag mën naa la ko wutal nga ne ko wutal ma ko fay naa la ci nangam loolu dagan naan dëgganut xam nañ ne ñëw na ci xadis boo xam ne xakimu nu xisaam moo ko nettali nee na xakim mooy nettali nee na damaa dem ci yonente bi ne ko yaa rasulallah man kat léeg-léeg nit day ñëw ci man di jënd loo xam ne amaguma ko ma dem jëndi ko ñëw jaay ko ko yonente bi ne ko déeret laata tabi maa laysa indak bul jaay loo amagut bul jaay loo jënd jëndagut boo demee ci baar yi bu ibnu xajar dafa lay wax ne ibnu munzir nee na jaay loo amagut mën nañ koo firee ñaari firin mooy benn nga ne ko dama lay jaay sama jaam bi wala sama kër gi fekk amagoo ko loolu boobaa day dugg ci xarar gi ñu doon wax léegi mën ngaa dem am ko mën ngaa dem di ko jënde am ko mën ngaa dem bañ koo am ñaareel bi mooy nga ne ko dama lay jaay oto diw sàngam bii waaye nag damay dem jënd ko ci moom ba pare nee na yooyu yëpp Ibnu Xajar nag bi mu waxee loolu ba nopp dane bii mu mujj wax moo ci gën a yenu maanaam léegi e, risaala bi ñu jàng risaala bu Ibnu Abi Zayd al-Xayrawaani bi bu ñu demee ci risaala danañ gis mën naa ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليka xaalan sañoo jaay loo jëndagut bu fekkente ne njaayum teew mu teew la nga xam ne ki lay jaay da nga koo teewal loolu nag boo demee ci suraax yi ku mel ne nafraaw yi ci alfawaakihu dawaan yi daf naan la te dañ lay tere yow miy jaay ngay jaay loo xam ne ëmmagoo ko ndax loolu lay dugg ñoom liñ ko liñ ko layeele mooy day dugg ci li ñu tuddee assalamul xaal xam nga salam dagan na salam mooy lu mel ne ab baykat ñëw bëgg nga bëgg nga financé ko nga ne ko danaa la financé waaye boo bayee ba nopp da nga may jox nangami toni nangam nangami toni ceeb wala nangami toni gerte wala nangami toni toni dugub nga xam ne yow da ngay jënd loo xam ne loo xam ne juddoogut loolu dagan na ci fiq waaye fii boo joxee jëndkat bi ne ko jaay ma nangam fekk amagu ko da koo war a wuti boobaa day mel ne salam nga def waaye salam bu teew nga def ñoom loolu lañ ko layale moo tax ñu ne dëgganut moom nafraaw yi day wax ne loolu kat booy xool day mel ne rek da nga da nga koo jox da koo jox masalan day mel ne bu ma la ne woon jaay ma téléphone bii fekk téléphone bi yow amagoo ko da koy wuti day mel ne dama laa jox fukki junni rek ne la demal jënd li ma téléphone bu dee jar fukki junni baax na kon léegi pertu ma pertu bu dee jar juróom-ñetti junni loolu day mel ni ki lay jëndali moo perte xam nga loolu moo tax ñu naan loolu safax la boo demee muy jar fukki junni ak ñaar mooy yow kon yow lañ nax moo tax ñu ne ñoom jaayloo jënd wut dëgganut waaye nag ci même saraa boobu am na lu bari lu nit ñi def loo xam ne da ko cee settee daf ne la bu fekkente ne ki ngay jaaykat bi jaaykat bi ngay def lanteel lii day jaaykat boo xam ne marchandise mi ngay sàkku ci moom day marchandise moom baaxoo am masalan jaaykat boo xam ne meew rek lay jaay nga ñëw ne ko jaay ma nangami quantité ci meew may la fi ne de amu fi waaye fii ak suba mën naa la ko indil mën naa la ko libere nee nañ boobaa dagan na loolu lu mat a bàyyi xel la bu dee jaaykat boo xam ne lii rek lañ ko xamee nga xam ne li mu koy am bari na boobaa dagan na moo wi di wax naan موضوع كلام المصنف أن البيع وقع على السلعة قبل أن يملكها بائعها وذلك منع لما عرفت من أن هذا مفهوم السلام الجائز دمبم ياغمنان واما لو طلب شخص من اخر سلعه ليش لول بنين بنين مساله لا واي دفعني واما لو كان يغلب وجوده عنده فكي ام بارينا فانه يجوز ان يشتريه منه على الحلول koo xam ne ciment rek lay jaay boo demee mooy la fi ak ñaari fan nga jot ci jox ko loolu dagan na waaw kon jaay loo jëndagut mën nañ cee tënk loolu beneen façon jaay boo xam ne nit ñi ngi koy def mooy jaay aw ñam woo bu la libéré gut bayon taam xab la xab dëxii lañ ko tudde ñoom fii nag dañ fiy séddale ñam ñaari xeet borom xam-xam yi dañ naan la ñam am na ñam yoo xam ne riba da ciy mën a am loolu la ñuy wax taam ribaw yi am na ci ñam yoo xam ne riba du ci am bu dee fii nag ñam wu mën a doon la ñu wax dañ naan la li ngay jaay ak li ngay jënd benn mu nekk aw ñam wala mu nekk leneen fi ne xar mi ngay jënd ca daral ga sañ nga koo jaay te joxaguñ la ko oto bi nga jënd sañ nga koo jaay te te la ko waaye aw ñam sañu koo jaay te libéré la ko aw ñam moo xam muy ceeb moo xam muy dugub moo xam muy meew moo xam muy lu mën a doon ñam woo xam ne da nga koo jënd da ngaa joxe dara ñu jox la ko da nga koo jënd wala da ngaa nekk ci place di liggéey ñu la koy fayee wala dañ la ko joxe can bu dee jigéen ñam woowu sañu koo jaayaat njëkk ñu la koy libéré waaw loolu it lu mat a bàyyi xel la moo tax boo demee ci tux fa mu lay wax naan wal bay'u lit ta'ami qabla al qabdi mumtani'un ma lam yakun an qardi ibnu jusay ci alqawaaniyul fiqhiya dafay wax ne ku jënd aw ñam wala ñu liggéey loola fayee la ko wala ñu joxe la ko ndàmpaay wala ak juboo wala mu bu dee jigéen ñu joxe ko ko ak can sañu koo jaay sañu koo jaayaat njëkk mu koy jël njëkk ñu koy libéré libération bi nag danañ wax léegi ni muy demee lii nag niñ ko waxee ci aw ñam facture yi ñu lay jox léeg-léeg da ciy dugg masalan état mën nay libéré commerçant bu mag quantité bu baree bari ci meew wala ci ceeb wala ci dugub léegi joxu ko ko waaye da ko jox facture xamal ko ne ko fii ak nàngam boo demee port da nga fa am da nga fa da fa am nàngam ci quantité nàngam wala boo demee garage nàngam da nga fa am quantité nàngam commerçant boobu boo yoree facture boobu est-ce que sañ naa jaay quantité boobu njëkk ñu koy libéré déedéet sañu ko ndax loolu day dugg ci bayon temps xam la xab xabdihi dafa ñëw ci muntaxaa bu aliment imaamu baaji mu ne ñëw na ca bi ya ci riwaaya ashab bu mu jëlee ci Malik ne Omar ibnu Xattaab lim daan jox soxna yonente bi ci aw ñam loolu mën nañ koo jaay njëkk ñu koy njëkk ñu koy jël kon jigéen li nga koy jox nga xam ne moom dépense la jënd ko loolu sañ na ko jaay avant avant ñu koy avant ñu koy libere kon bu ñu naan la jaay aw ñam njëkk ñu la koy libere day ñu fekk ñam woo xam ne da nga koo jënd di ko jaayaat waaye kon jamonoy màggal Tuubaa léeg-léeg danañ fi sedd la ay ceeb wala léeg-léeg nga gis Touba ca kanam fekk néew ju doole ju mel ne man mu jox ko ceeb bu bari wala daayira Muxaddamatul Xidma fekk ku mel ne man mu jox la suukar su bari buñ ne maa am nga fi suukar rek sañ naa ko jaayaat ndax jënduma ko moo tax kon ñam wi nga xam ne sañoo koo jaay njëkk nga njëkk ñu la koy libéré mooy ñam wi nga xam ne da nga koo jënd wala da dalaa dikkee ci payoor wala dañ la ko jox cen loolu it lu ma ta bàyyi xel la ñoom liñ koy layalé bo démé ci tasuul ci bëx ja daf nan la dañuy bañ ay accord yu baree baree bari di di continuer dem rek ta xabdu amu ci ta li récupération amu ci ndax lool bu amé bu yaggé dañuy tijara bil arqam rek manam ay ay ay ay numéro fi nek rek waaye daanaka marxisme taxaw du am bo ta lool na mën nañu dem ba nit ñi def ko ay pexé di jaayante ak jëneenté mo xamné du tegu fenn boo demee ci du suuxi sax joxé na ci banen illa banen sabab mooy dafay wax ne borom xamam xam yi dañuy wax ne buñ ñu doon bàyyi noonu rek di jaay ak jëndante ci ñam yoo xam ne dañu ko récupéré bu yàggee dañuy xañ àq yenukat yi ndax yenukat yi dañoo am àq ci euh, ceeb bi ñuy yenu dañuy xañ àq kat yi dañuy xañ àq borom sareet yi bu dee fii ci Touba ak borom oto yi nga xam ne dañuy libéré waaw kon moo tax aw ñam bu fekkee da nga koo jënd di ko jaayaat faw nga récupéré ko récupéré gi nag mooy lan mooy ñu nattal bu dee lu ñu peese nañ la ko peeseel ne la mi ngi nii def ko ci say disposition mo xam nak dang ko baye ci place ba mo xam nang ko yobale lolou lañu wax récupération benen façon njaay mom wax naa ko léegi moy ñi nga xamne dañ lay jaay dara ne la boko jënd teew mu teew juroom benn junni la la ko jaay bu dee da ngay baye ba wër yu dee nak 40000 la la ko jaay lolou dagan na dagan na boko jëlé 40000 ngay fay lolou dagan na li nun moy nga jël ko te xamuñ ban prix nga ko jëlé waye boko jëlé ci prix buñ xam rek dagan na amna na lu ñuy wax bayul istijrar momit lu bare bari la <clears throat> masabu imam malik ñom dañ ko daan tuddee bayu ahlil madina xam nga kenn ku ci ne ci ñun dana la faral di dal bo dende ak boutique wala place nga dem di jël par ndank ndank ciép wala nga dem di jël ay yéré wala nga dem di jël ay matériel ay bagage nga wala nga dem di jël ciment bu fekké da nga nek ci légui bo démé ba at mi jeex wala ba ñaari weer jeex wala ba jeex nga ñëw ne ko ñaata la fi am muy la am nga fi nàngam nga dem fay loolu dagan naam dëgganut ci maalikee yi dañ naan loolu am na mën naa am ci ñetti anam anam gu njëkk gi mooy dangay dem ci jaaykat bi nga jox ko somm masalan dama ñëw ci yow jox la juróomi junni ne la bis bu set danaa fi jël kilo suukar fekk kilo suukar xam nañ ñaat lay jar loolu dagan na kon saa yoo xamee ne li nga joxe njëg gi xam nañ ko marchandise bi mu la wara jox xam nañ ko dagan na ndax boba danger amatut loolu la imaam Malik di wax nan wala ba sa an yada an rajulu inda rajuli dirhaman summa yaqudu minhu bi rubin aw bi sulusin aw bi kasrin ma'lum silatan ma'luma bo demé ci baaji ji daf naan la lu melne nga jox ko dara bis seet mu jox la ci nangam ci soow wala nga jox ko dara bis seet mu jox la ci nangam ci tanarma nga xamné prix bi xam nañ ko marchandise bi xam nañ ko ñaareelu anam gi moy nga jox jaay nga bàyyi ci kat bi ab som masalan bàyyi nga fu fukki euh ne ko deema jox bis bu set nangam ci litre diiw wala nangam ci xeer bis bu set waye li problème bi moy marchandise mi ngi ko wax day marchandise mo xamne prix bi day yéeg ko wacc lolou dëgganut lu bare koy def nak waye marchandise moo ne prix bi day yéeg ka wàcc sañoo faa bàyyi somme di ca jël par ndànk-ndànk ndax ñoom loolu dañ naan dafa am xarar ndax léeg-léeg bi mën naa yéeg prix bi mën naa wàññi ko loo xam ne nag xamoo xamoo ba ba ba mënoo fixé prix am day dugg ci xarar gi ñu doon wax léegi day dugg ci naxaate gi ñu doon wax léegi loolu moo tax boo demee ca imam Baaji daf lay wax ne li anna ma aqada alayhi min as-saman majhul ndax prix ba tey kenn xamul prix bi nga fi ndax tey mën nga ko mën na laa jox xeer ci junni ëllëg mu jox la ko ci ñaari yu ñaare day indi ak xëccoo akuk akuk werante bo demee ci istiskaar bu imam abdul bar ci sarxu muwatta danaan la hada ma la xilaafa fiihi lil jahli bi mablagi ma yaqudu kulla yawmin bi sinrihi linqifaadi l asaari wa irtifaaxiha ndax prix yi day yéeg ak a wàññi ko ñetteel bi nga xam ne dagan na it mooy nga dem ci jaaykat bi ne ko saakoob ceeb lu muy jar mooy la ñetti junni nga ne ko ñetti junne ngi ni waye rek ma fi bàyyil saako bi bis bu set waa kër gi danañ fi ñew natt ñaari kilo lool dagan na woon wa ndax jënd jënd mi ñaay mi jeex na dala ko téel rek lool dagan na amna benen façon jaay mo ñëk ci bi ci mujj mooy li wax bay ul urban danañ ko tuddé urbun danañ ko tuddé arabuun moy ñaay mo xamné ne ci lay jaay wala mu lay da danaan la dang may jox avance buñ démé ba ci digg bi bo d'accordé Amas bi dañ koy génne ci njëg gi boo d'accord na da ngay perte loolu dëgganut bu fekkee dafa ne la da nga may da nga may jox avance nag boo d'accordee mu génn ci njëg gi boo ma delloo la sa xaalis dagan na nii la ko imam malik jàngalee ca mu daw wana ca mu watta sax nee na am na xadis bu ma ñi daan ne naha an bayil urbaan yonente bi dafa tere urbaan daat koy firee ni ma ko firee mooy koo xam da lay luyee ak daaba wala mu lay jaay dara ne la da may jox avance bu fekkente ne njaay mi wéy na ma dugal ko ci njëg yi bu fekkee njaay mi yooyu it ñu xàcc nii mi ko firee nag moom imam Malik ci siskaar boobu ñu Abdul Bar dafay wax ne nii ko imam Malik firee noonu la ko fuqaha yu amsaar yi firee ci Xijaas ak Iraq Shaafi'i yi noonu la ko gisee Sawri yi noonu la ko gisee Abu Hanifa noonu la ko gisee Awzaa'i yi noonu la ko gisee ak Lays ak ñeneen ak ñeneen moom li mu ko layeele daf ne ndax loolu lay bokk ci bayamul xarar wala mu xaatara day dugg ci njaayum naxaate boo demee ci imaam Qurtubi ci aljaami li ahkaamil Quraan fi mu firee li borom di wax naan laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil daf ne dafa bokk ci la lekk alali nit ci lu jaarut ci yoon mooy avance yooyu ñuy joxe ba noppi bu njaay mi dugut ñu koy lekk bi may mujje mooy bu yuuxul ay na bu dee ci banque yi léegi dañ ko tudde tawarruq التورق المنظم ولا التورق العكسي كي بانك اسلامي بيوع العينة ين فقهاء يدن كتو بيوع الاجال موم خيتو نجاي لا مو خامني بو خول نور لو نورمال واي بيرغي اكسبلواتاسيون داتي ام موم لا ني واخ ليغي سي مارسي بي بوكي ياكنا بوكي لنجي تودي موم داي ام سي ديغنتي كو خامني دا بغ خاليس ليغي واي خامني بو لا ليبي دوكو ليبال اك كو خامني موم da bëggu laa jaay wala waaye dalaa bëgg a exploité léegi nu muy deme ak lu tax ñu koy tere am na ñaari sabab yu tax ñu koy tere am ëpp na ñetti sabab sax dama ci tudd ñaari sabab rek mooy benn bi dañ naan jaay ak lépp dajee daje te jaay ak lépp fu ñu dajee njaay ma baaxut masalaan kii dafa yor ñaari téléphone ne la kaay ma jaay la ko ci ñaar fukki junni bi ñu la ko jaayee ci ñaar fukki junni ba noppi ne la jaayaan ma benn bi ci fukki junni léegi lan mooy xew ñaari téléphone ne la kaay ma jaay la ko ci ñaar fukki junni ne la joxaat ma benn bi ma jox la fukki junni léegi lii xew mooy amee nga boru ñaar fukki junni benn téléphone nga yor te benn fukki junni nga téye mooy kon day mel ni ci biir accord bi dala cee lebal dala cee lebal ba noppi tamit jaay la ci waaw lim la ci lebal mooy fukki junni ndax moom téléphone am delluwaat na ci moom lim la jaay mooy ñaar fukki junni yi nga xam ne war nga koo fay loolu kon bayon ak salaf da cee daje kon booy xool euh, yow war ngaa fay ñaar fukki junni bu weer bi dee masalan fukki junni yi day jàkkaarloog euh, marchandise mi nga yor nii muy téléphone bi nga téye loolu am njaay la moom xam nga yeneen fukki junni yi nag leeb la ndax mom téléphone ba récupéré waat na ko bu yàgg loolu day loolu daganut ñaareel bi ñu ne bokk na ci li tax mu bañ a dagan mooy day dugg ci li ñuy tuddee salaf jarra nafaan te mooy bi ci mujj moom am na ñaari anam mooy kii dalay jaay marchandise mii ci fukki junni danaan la kaay ma jaay la téléphone bi bu weer wi deebee nga fay ma da ngeen waxante ba mu jox la téléphone mooy la jaayaan ma ci juróomi junni ma fay la léegi wala ma fay la fii ak juróomi fan avant délai sa délai bay ñëw daal waaw loolu dëgganut ndax kon booy xool fii ndax booy xool marchandise mi delluwaat na ci moom day mel ne njaay mi amut njaay mi day mel la ñu waxanteeg lu ñu waxante ba bàyyi la rek waaye waaye leb ak leb ak bor moo fi am ñaareel bi mooy mu masalan mu la marchandise mi kaay ma jaay la ko junni fii ak ñaari weer nga fay ma waaye dem ba mu yàgg may la jaay ma ko ci junneeg juróomi téeméer ba ñetti weer ma soog laa fay mooy safaanu bu njëkk bi loolu it dëgganut ndax xaaida bi ci mashabu imaam Malik ci ni ko Ibnu Juzay waxee xaaida bu am solo la wax nee na ci mashab bi li ñu xool mooy mashabu Malik yanzuru maa xaraja bi anil yadi wa daxala bihi wa yulxil wasaait mashab bi li muy xool mooy sa loxo lan moo ci dugg ak lan moo ci génn bu dee téléphone moo dugg sa loxo ba noppi sa waay fexe ba récupéré waat ko ngir jox la xaalis bu gën a néew woo koo fay lu gën a bari kon day mel ne xaalis moo dugg sa loxo jàkkaarloog xaalis boo war a fay lu ko ëpp loolu la riba lay doon borom xam-xam yi dañuy wax ne lepp ak garantie ak daraja ñett yi dañ koo war a def rek ngir yàlla waaye kenn sañu cee am ak fay kon ci tënk siñam ñam di waxtaan wi nag tënk naa ko lool ci ay tomb waaye jàpp naa ne loolu doy na sëkk ab ab ab ab dars incha allah ku ci am lu la lënt wala loo ci bëgg laaj boo ko jotlee mbokk yi danañ ko boole ci jotaayu gàggantiku yi incha allah maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax di wan ne kon njaay la ñeent yooyu daanaka mooy tax mu araam mu am exploitation wala riba walla riche wala boog ak rënk am ci booy seetlu tamit jaay ak jënd toujours dañuy xool dañ ciy xool yéene kiy jaay ak yéene ki jënd ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégluwaat bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf al ustaz sëriñ abdul qadir buso alxaaji cheikhu ci bind bu am solo bi nga xam ne jàng nañ ko ni ma ko waxee woon ci njëlbeen jotaay ñetti xaaj la xaajub tey bii ñu doon def ci jotaay yi ñu baaxoo amal mooy jàngale moom tey daa tànn dañoo tànn benn xaaj ci biir bunt wala chapitre bi ñuy woowee jënd ak jaay ci sharia tànn ca ab ab bunt ab pàcc boo xamante ne mooy xeeti jaay ak jënd yi nga xamante ne dañ koy tere loolu nag day mel ne bi mu ko waxtaanee ba noppi ñun ñëpp jariñu nañ ci ndax ñun ñi fi nekk ñëpp loolu dañoo tënk benn ay jaaykat lañ wala ay jëndkat lañ kiy jaay moom wax nañ ko nan la war a jaayee ak nan lay jaayee ngir mu daggan ci sharia kiy jënd itam wax nañ ko moom nan la war a jëndee ngir loolu mu jënd bu ko jëfe bu ko jëfandikoo lislaam bañ ko jënd rek benn daal ñaar ñii lañ doon waxal te ñun ñii fi nekk ñëpp kenn génnu ci ñi ñuy topp itam kenn génnu ci kon nit ki dafa war a li lim jiitaloon ci njëlbeen mooy julit bi wala mu mu gën a yaatu murit bi ma gën koo tënk Sëñ Tuubaa da ko wax ne ko sañoo def lenn ci sa dund gi lu dul ne dangaa ngaa xam lan la ci yàlla àtte loolu sañoo ko yow ginnaaw sañoo def lenn loo xamante ne xamoo lu ca diine atte nag tey mënoo mucc ci ñaar ñi benn ngay jaay wala ngay jënd kon da ngaa war a xam yow li ngay def lan la ca lislaam atte loolu moo tax ñàkk gee xam wala umpule gi moom kenn sañu ko ndax ku xamul da nga koo war a danga nga koo war a laaj li si misaako doon wax man ku xamul laajul ku xam xaw ma layam mooy aw lay amut faw da war a xam wala nga laaj ku xam ngir la ngay jëf bañ a dugg ci ak lënt buñu ñu waxtaanu da ngay gis né lim doon waxtaane moy ay atté wala ay jëflanté ci jënd ak jaay yu ñu kon ki jaay am na dana ci gis bopam ki jënd naka noonu jappal ne lepp lo ne wuñ ko ci lu aram, dafa dagan lool sax bo xolé ci suñu règlement wala loi yi ñuy jëflante ñun dañ nan tout ce qui n'est pas interdit est permis maam lépp loo xamante ne terewuñ ko rek dañ koo dañ koo daganal loolu mooy loolu mooy loolu lay sariya sariya wax al aslu fil ashyaa'i al ibaha wala beneen tëggiin bi ko sëñ Abdou Khadir tëggee ci biir ci biir waxtaan kon jàppal na lépp luñ terewul rek jaay ko wala jënd ko dagan na jëflante ja lépp loo xamante ne dafa xaraamoon ci cosaan jaay ko dafa araam jënd ko itam noonu dañ koy tere ku ko def daane yàlla mën naa tegul ci sa kaw bépp jëflante ci wàllu njaay boo xamante ne jëflante bu leerul la maam ak lënt am na ci boobu dafa aram dañ koo tere dañoo tere ki koy jaay mu jëf ko tere ki koy jënd itam mu jëflante ca bépp jaay boo xamante ne ak wor da caa am wor da caa am moo xam kii jaay moo mooy wore wala kii jënd mooy mooy wore ñaar yëpp mën naa nekk lool ak bépp jëflante boo xam ne demee na noonu araam na ci ki ki xam wor gi ki xam wor gi ne ci biir kooka jënd ga araam na ci moom wala jaay comme koy jaay te xam ko araam na ci moom bépp jaay boo xamante ne ak naxante da am ak naxe am mooy kiy jaay yow da ngay ki ngay jaay wala kiy jaay da kiy jënd dalaa nax ñaar yooyu tamit dañ koy tere bépp jaay wala jënd boo xam ne ak noggatu am na ci mooy bu ñu wax jaay ak jënd la ñuy wax kiy jaay wala kii jënd bépp boo xamante ne yow da ngay jaay di noggatu ki ngay jaay wala ngay jënd di noggatu ci ki ngay jëndee xamal ne jaay booba xamal ne jëflante booba dafa xaram dañ koo dañ koo tere bépp jaay boo xamante ne ak ñàkk wóor am na ci mooy confiance mooy kiy jënd wóoluwut amut ak kóolute ci li muy jënd wala kiy jaay amul lu ko wóor ci ne li muy jaay mën na koo jébbale booba tamit dañ koy dañ koy tere lii nag ngir ñu mën cee mucc ñun li Sëñ Abdou Khadre waxoon ci njëlbeen da ci am solo mooy wut ay contrôleur ay mooy nu ñoo muxtasib koo xamante ne day ne ci biir marché bi xam li ñuy jaay ak li ñuy jëflante ak li ñuy tere ku jëflante jëflante bu baaxul mu yee la ca bu jaree waar mu waar la ne lii ngay def ci bu buñ ko tënkee ci diine dafa def nii dafa def nii dafa def nii loola lu baaxoon la te junj na ne amoon na ci marché yu njëkkee nga xamante ne ay kilifay lislaam dañoo amoon yilifoon nit ñëpp di di lijjanti seenu jëflante ci wàll gépp dañ daan wut sàkk a nit ñoo xam dañ dem ci marché ba di jëflante ci ñoom ca loola kon ñi nga xamante ne dañuy jaay nekk ay commerçant ak ñi nga xamante ne dañuy ay jëndkat nekk ay consommateur kenn ku nekk am na wàll ci waxtaan wi ñu doon waxtaan te war na coo bàyyi xel bu baax a baax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne man yuridullahu bihi xayran yufaqihu fi diin koo xamante ne yàlla daa namm ca moom mu nekk koo xamante ne ku bëri ba lay nekk day fexe ba la muy jëflante mu xam ca lam ca war a xam mooy kiy jënd xam li muy jënd ak ni muy jëflante ndax dagan wala dëgganul kiy jaay tamit dafa war a xam li muy jaay ak li muy jën li muy jaay ndax dagan na ni mu koy jaayee ndax ana miinu njaay yiin wuñ nangu la ci diine ñaar yooyu yëpp daa mënta ñàkk moo tax bu ñu jàpp ne waxtaan wi commerçant yi rek ñoo ko moom dëgg la am nañ ci wàll wu rëy waaye jënd yi am nañ ci wàll wu rëy ndax jënd lu dëgganut day tax na nga koy jëf na nga koy jëfandikoo du baax eh, kon Sëñ Abdou waxtaan wi leer na bu buñ ci buñ buñ jugee ci jéem koo leeralaat wala tënk ko sax mën naa jóg ak te leeral lu lu lu leer ba nopp moom ak lëntal la ñu ngi jéggalu bu baax a baax di leen bàyyi loo xel ne ni mu ko waxee ci mujjantal lépp loo xamante ne dégg ngeen ko ci mu nekk loo xamante ne bëgg ngeen ci yeneen leeral man ngeen a yónnee laaj ba ngeen cay laaj ci numéro bi 78 689 28 28 wala ngeen jaar ci suñu plateforme yi moo xam Facebook wala yi nga xamante ne dañ fay yo yo yónnee dañ fay jàllale waxtaan wi ñu ngi ko doon jàllale ci MK TV suba waxtaan wi ñuy waxtaane incha allah mooy jotaay bi. jàpp leen ne benn ci conférence lay doon moy thème bo xam dañ koy geussu mu nek muy laal wa société bi moy ni ñu dundé ñu def ci ab jangat def ci ab taxaw sétlu wax ci nan lañ ci wara taxawé suba ñi ngi waxtané njangum jigen ñi lan moy jublu wayi ak yeen jeexital la mëna am inshallah taala bu ngeen ko tewla dana nek tom bu am solo moy ta'limul mar'ati maqasidun wa athar wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa